أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة الحمد لله رب العالمين الخائل في محكم تنزيله وآت ذا قربى حقه والمسكين وابن السبيل wala tubadiru tabdira sadaqallahu alazim salawatullahi wa salaamuhu ala ashrafi alaalamin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim amma baadu ayuha almushahiduna alkiram fi télévision sunu label tv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 delsiwaat nañu ci suba si àndaat ak joxaat leen loxob xol bi santati sunu boroom menu mayaat daje bi tàllati ko loxo moom yàlla ñaanaat ko yàlla nañu ko yàgg may julli sëlman ci sangu àdduna ak laaxira sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mi am jàmm am yërmande am barke yal na yàlla bokk na ko defal ñun ñëpp nuyu leen ziyaar leen ndokkeel leen ziyaar yéeg nuyoo yéeg ndokkeel yi jiiteel ci kilifa diine yi mu rogalaat ci wayu jur yi nga xam ni noonu bokk njaboote waaye rogalaat ci mboolem xarit yi mboolem soppe yi mboolem am di jam yi bàyyiwuñu kenn sëriñ Abdou Ba njegéen njegéen maam aas ma ziyaar ko bu baax ndokkeel ko waaye Muhammad Tette Ba ma nuyu ko ndokkeel ko ziyaar ko ñaanal ko yàlla moom it e, loolu nga xam ni sumb na ko yàlla ko ci yàlla defal ndam moom ak mboolem ñu ko àndal e, jag leen nuyoo ak ziyaar mu jëm ci sunu directeur Hadj Makhtar Sylla ndokkeel ko bu baax waaye ñaanal ko yàlla yàlla taxaw mbiram yi biir ak biti yàlla dolli ko wér personnel bi ñu nuyu leen ziar leen ñoom ñëpp teg ko ci loxol soxna Aida mu yóbbaaleel ma ñëpp géew ñaanal bu baax boroom xam-xam yi yàlla may nu nuy wéralante te bañ di werante ndokkeel leen ziar leen jagleel ci nuyoo sunu mag sunu sëriñ alaaji Idrissa Diop bu rahmatullah alayhi tafsir Oustaz Oumar Diop waaye mu yóbbaale njaboot gi yëpp géew waaye ma jaar ci moom mu yóbbaale boroom xam-xam yëpp géew Moussa dellusiwaat ci suba si ci ni ñu ko waxee woon bi ñuy tàqalikoo démb waxoon ni ñeenteel bi yonent bi wax ni day feeñal cofeelu rasulullahi ci yow xam nga ñun Moussa chaque jour ma wax ko ñu dañoo defe sopp yonent bi fi taxu la ñun jógeeguñu foofu ba léegi ñun ci fi taxu rek lañ yem anay soppee yonent bi ñu jóg fi taxu waaw ana soppe yonent bi ñu jóg fi toxo après ñuy xeex ci jataay bi <laughs> ah Moussa gisoo leen ko fi man de gis naa ko tànt bu amee xeex man gis naa tànt bu am xeex tànt bu ñu tàntale yonent bi ñu xeex fa man gis naa ko ñi fa ñëw soppeekal lañ soppe yonent bi nga fi taxu après nga pare génn fi di saaga nit ñi ah koo sopp ah est-ce que Aboubacar daan na taxaw fii di saag nit ñi est-ce que Omar moom Xattaab noonu la doon doxalee est-ce que Ali noonu la doon doxalee Ousmane noonu la doxole doxalee Bilal ak Ammar noonu la ñu doon doxalee ma wàcc léegi Alaaji Malik ak sëñ Tuubaa yaakaar sopp seen soxla ci yonent bi ma ba tax ñoom ñu bind ko ndax gis na li ñu doxalee noonu ah yow nga da ngaa sopp yonent bi nekk fii lu ñaaw lu la neex wax nit ñi ana sa cofeel moo tax faaw ñu def attention bëri na ko am ñuy nax sopp nu yonent ñun la ñuy nax parce que dañoo xam foofu lañ ñuy jaar Amouza li gën a bon mooy nit koo xam ne xam na fi may jaar nit ñi xam nga man mii Moussa su ma fi nekkee xam ni su ma tourné naan taaxa job sopp nabi taaxa job ama sopp nabi loolu dafa yomb mais mën naam dama ci am ñoom ci laa leen di jaar pour dóor leen ci xam nga yomb na bu ma ci bëggee dóor ay dama leen ci dóor ñaan taaxa job sopp nabi mo moo tax nit ñi dañoo war a yeewu Moussa jot na sopp na bi duñ ko xool ci ay mbind am mbind bu mu turam sopp na bi duñ ko xool ci mbubb ak yére ci ay jukkoo ki melokaan la sopp na bi boo xam foo toog maanaam wax nit ñi safaan kula la xool sax nga mer <laughs> te nee nga da ngaa sopp na bi tey ku la xool baa nga mer ana sa sopp yonent bi rawatina nag bii may waxtaane musa nga xam ne mooy ñeenteel bi yonent bi waxoon ni képp ku ko teetul mënoo ko maîtriser woo ko sa cofeel ci man dëggoogul te muy Moussa mooy lan mooy sopp say mbokk xam naa nag point bu sensible la parce que Moussa fii réew mi toll moom <laughs> moom fii réew mi moom boo dañ naan xanaa saa man lay waxal ah parce que Moussa réew mu tasaaroo lañ ne kenn mënta ànd ak ay mbokkam pourquoi Moussa ñun kenn mënta ànd ak ay mbokkam lan moo tax loolu xoolee ñëpp loolu la ñuy wax koo xamul la fii xam nga say mbokk ñoo lay gor mais war nañ toog waxtaan suñu biir maam suñu woote diine geeg sunu maanaam sopp yonenti geeg sunu yii ñuy wax ndax dëgg la Moussa bu nu wirdee salaatal faatihi mbaa ñuy wirde laa ilaha illallah mbaa ñuy def astaghfirullah bu defee effet Moussa dootoo yëg sax sa mbokk bala noonu doo ko yëg maam yow boo def laang daf lañ lay jàppee parce que yow doo jàpp kenn noon doo am doo xam ne sax noon am na mais nit ko xam ne yow foo toog yaa ngi lijjanti diw ni may xoolee diw yéene wuma di diw yooyu la ñu war a jóge tuuti ku la yéene ku la yéenewul yooyu la ñuy jóge parce que Moussa mënoo dugg ci xolu nit ñi xam lu am solo mooy fexe ba respecte fi la yàlla boole ku ci ne cër wi mu moom nga jox ko Moussa respecté Moussa wax ko démb nit day respecté ki mu bokkal bu dee yaa ko magak bu dee moo la magak bu dee yéen a maase ak lan cofeel nag Moussa xanaa biir am problème cofeel xoolal Moussa respecté sax léeg-léeg moo am xam nga léeg-léeg sax nga respecté koo xam ni ci famille bi mën nam daa am xaalis moo tax ñu respecté ko mais mën nam sax soppuñu ko <laughs> Moussa man waxuma waxuma respect waxuma respect sa waaye ndax mooy joxe dépasse <laughs> man waxuma respect sa waaye parce que ndax moo ñuy xettale man waxuma genre respect boobu man waxuma respect ngir xaalis Moussa respecté ngir sama deret la man respect boobu laa wax respecté ngir ay mbokk lañu man respect boobu laa wax waxuma respect ngir ay sawaay xam nga euh, moom sege moo fi nekk te ñun Moussa kat foofu lañ tool de ñun koo seen ñu respecté ko ci famille bi daa am dara xaw ma ay nit lañu xaw ma ay bay ma ko am dara daal ñu ndiiraan topp la Moussa léeg-léeg sa gis koo xam day topp euh, keneen bay famille ma <laughs> topp keneen ah te Moussa wax naa ko démb Moussa billahi ku ngeen gis mu bañ mu bokkal bëggu leen ñëw di yàq seen der ñëw ci yow Moussa ngir danga ngaa yor dara mu lay yàq mu yàq seen deru ñu mu bokkal billahi Moussa maa ngi lay wax maytul kooku du ko baax topp la ngir da laa bëgg de da ngaa yor dara ba nga jeexal ci ngay xam ni billahi sa waay bëggu la non Moussa nit ku ñemee taxaw yàq ah, ñu mu bokkal ci sa kanam yow mu lay tagg ngir lan da yor dara mais yow war nga def taxaw seetlu war nga ne tekk ne sa waay yi muy def est-ce que yëfi nit la mbokk yi d'accord waxuma kenn du jotee ko bokkal mais musa est-ce que jar na yàq dara wa xubbul ixwaani rasulullah nee na su dee sunu cofee li ñu am ci moom dëgg la billahi da bëgg ki nga bokkal Moussa nit nag soo ko bëggee doo ko yéene mukk safaan neel benn Moussa nit soo ko bëggee da nga koy défendre fu ñu ko waxee safaat nel ñaar Moussa nit soo ko bëggee soo ko gisee sax mu nekk ci lu yoon yaay woo yaa koy woo ngeen waxtaan ci yéen ñaar nga wutal ko solution Moussa yii mooy mbëggeel waaye bokk ak nit yaa ngi yàkkamti mu am defet ba nga wër ci dëkk bi di ko wax saa bàyyi ko rek day kii ah, ñun dañoo am ay melokaan yu bon mais ko la wax de nit day bokk ak yow nga am benn tolof tolof rek nga gis booy muy wër ci dëkk bi sa waay ko rek dara dooy daf daf lu di jaay ni ñi mais gis nga temps yi gis nga temps yi yow doo sax nit yow wéeroo sax yow boo wéeroon war nga xam lii ngay def sax rafetul musa nit day bëgg ay mbokkam mooy tax ñu xam ni sa cofeel ci Sayyiduna Muhammad dëgg la waaw waxkat bi wax naa ko démb daf ne nit dundam pour mu neex Moussa du am xaalis du am xaalis mooy neexal dund Moussa la mooy neexal dund mooy jubóog say mbokk nit yàlla moo ko way de la umruka maa maalul fata bi zahiratin walakin ixwaanu safai zahirun Moussa am xaalis neex na lool parce que mën na boo bëggee faj sa soxla ju faj ko waaye Moussa am na lu ko dàq billahi lazi illa wali dàq am xaalis mooy am say mbokk ñu am cofeel ci yow ñu bëgg la Moussa loolu moo daq am xaalis maa ngi ñaan yal na yàlla dimbalee ñu loolu rasulullahi dafa wax ni ku jël mbaax def ko feneen fu dul say mbokk moo xam wax la parce que Moussa ñun dañoo léeg-léeg gis ku mën a waxalaate lu baax te moom tamit du ko waxalaay mbokkam yàlla nee na nanguwuma ko nanguwuma wax jooju wax jooju maanaam du ma la ca may tuyaaba donte wax ju baax la te Moussa ku wax lu baax da ngaa war a fayu da nga am tuyaaba mais yonent bi nee na ku jël lu baax jëllu ko sa jiggi ko say mbok yóbbu ko feneen def ko fa mbaa wax ko fa nee na yëgal ni yàlla du ko nangul man kaana aqaaribahu duafaau wa lam yuxsin ilayhim wa yasrif sadaqatuhu ila gayrihim lam yaqbal illaahu minhu sadaqatuhu wala yanduru ilayhi yowma alqiyaama Moussa gis nga Moussa sa mbokk mbokku néew doole Moussa bu mu tee nga waxal ko mbaax <laughs> Moussa am mbokk mu néew doole bu mu tee nga waxal ko mbaax Moussa nit am na dara lu mu am waaw mën naa am boo xewlee maam kin mënu ko ci wax na ko ba taay Moussa koo xam ne boo xewlee mu jëli lycée Moussa lalal la basan yi gàttanul la gan yi servir jox mu servi <laughs> Moussa kii kan moo gën ci sa biir mbokk mais xam nga ne problème bi jaxewal enveloppe cinq cent mille <laughs> moo tax xoolal bu ñuy tudd micro bi bu ñuy gërëm ñëpp la ñuy gërëm moom kenn ko gërëm xew mi bu ñuy gërëm ñëpp la ñuy gërëm mais kenn ko tudd parce que moom xam nga tax joxewul xaalis mbokk yi nii nañu sëri nañu bàyyi xel ñu yàlla booleel dafa bokk ci bëgg yonent bi xubbul mbokk yi nañu bàyyi xel ni bëgg say mbokk dafa bokk ci li wane sa cofeel ci Seyduna Muhammad dafa benn góor dafa jàpp benn maanaam euh, picc musa tëj ko ci kaaf seku la mbokk yi sax dafa dab waaye histoire woowu <laughs> Moussa teg naa baaraam waaye ci mbokk laa jëm nañu déglu bu baax histoire bi Moussa suma ma del see suba ñu yëg ni nit Moussa lu mu def te jubawul ak ay mbokkam ne yëg ni billahi wallahi jubóog say mbokk moo ëpp sens loolu ngay def moo ko ëpp njëriñ moo ko ëpp yiw moo ko ëpp tuyaaba waaye lama daan ñaan rek su may daaneel lay ñaan musa yàlla naa la delloo seeni xelu suñu mbokk yi seeni xel parce que Moussa liñ koy waxee am na mbokk yoom dañoo naqaree dundal waaye Moussa bu mu tax ma yàq ko nag <laughs> dëgg la moom dëgg la parce que di nga am mën naa am sax Moussa ku bind ci commentaire yi mbokk yi du ñëpp a neexal nekk a neexal waaw d'accord waaye Moussa maa ngi ñaan ak mbokk lu mu yées yées yées yées du tax nga yàq deram du ko yàq damay d'accord nattu la yàlla ma ko nattoo Moussa ma bokk ak ku yàlla ma yàlla ma ko nattoo mais yonte la Muhammad kan moo mës a dégg mu wax safaan ci Abu Jahlin mais nattoom la yàlla ko nattoo kan moo mës a dégg mu wax jiju maam safaan ci Abu Sufyaan ba keroog muy tuub mais ay nattoom lañu boobu yàllaa ko ko nattoo mënu ci dara mais Moussa nit yàgg naa bokk ku safaanu waaye dama ne eh, bokk ku safaanu lu tax nga wax lu bon de du tax foo toog yàq deram de du tax lu loo jël muy mbalit nga sànni ko ko déedéet da ngaa war a wut kay solution nu may def ba mu baax su ma wutee solution ba keroog may dee xam ni def naa li ma man wala ba keroog muy dee ma xam ni def naa li ma man mais munu ma am munu maa fexe ba mu baax waaye mbokk yi nit daal day fexe ba bëgg mbokkam bi baax nag ak bi bon Moussa <laughs> loolu nag yombul dama ne bëgg say mbokk bi baax ak bi bon yombul de yal na yàlla dimbalee ñu jikko yooyu yal na yàlla dimbalee ñu xol yooyu yal na yàlla dimbalee ñu melokaan yooyu bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam ma gërëmaan ñëpp santaan ñëpp joxewaat rendez-vous Moussa suba ndax maa ngi woon ci benn histoire bu am solo waaye ni ma koy waxee rek bu yoon jeexul waaxu sel du jeex isa aradtum salaamatal ardi fattabi'u muhammadan wa ali hayatul mumi bokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waman adallu mimman yad'u min duni llahi man la yastajibu lahu